tax li gars yi di wax naan ñoom ñaari ñamante nañ xam ku ci ne xam nga sa morom di saf waaw mais làmb la joo xamante ni làmb ju doy waar la barki Serigne Bamba man gis naa ni combat boobu daal xam nga nekkul combat bu yombaat. non mënul yomb sax ndax ñu laale deux fois benn bi ñu max ne benn bi kenn ki daan kenn ki ne un un lay ne kenn ki ne ko deux heures laay def. moom laa lay wax ni mu nekk na ko man gis naa combat bu njëkk ba. bu njëkk ba. incha allah may bàyyi xel bu baax. yow it bu njëkk ba gis naa ko ci combat bi. maanaam yàgg te neex. wala match nul bi nga ciy wax. non waxuma waxuma match nul waxuma dara la dëgër la ñuy ñaanal yàlla may ko ndam ndax moom lañ bokkal Ikri ah moom lañ bokkal géej waaye tout ça Eumeu xam nga ñu ngi koy nuyu de passé la dëgër koy ñaanal yàlla may ko ndam. lii de kenn mësu ko gis Eumeu Sène junior ah nga ne la dëgër la ñaanal sa diggante ak Eumeu Sène dafa am lu ci nekk wala. amuñu amuñu benn maata amuñu benn maata làmb affaire koñ la affaire ak la Eumeu seen amuñu benn. ma yaakaar ki nga bëgg ba tuddee ko sa bopp ma yaakaar li nga sa bopp moom nga ko yéene. barki Serigne Bamba Eumeu Sène su ma taxawee ne la am nañ problème damay fen te bugguma fen amuñu benn problème mais damaa wax li fi nekk. ama seen amuñu benn problème man ak moom làmb affaire géejawaay la man 100 pour cent géejawaay laa bokk. mais bokkoon nga 100 pour cent ma ma ma mais 100 pour cent Pikine du ma la bokkoon naa ci. dama naan bokkoon nekkoon nga taay si nga nekkoon nga bul faale. xam nga 100 pour cent dafa garaaw mu ëmb lépp 100 man géejewaay laa doon gémboo di dem mais pikin laa doon entraîné jee kon nekku moon 100 pour maa ngi fay nuyu waa Tachinga di nuyu waa waa Bulfaale de xam nga ak sumay ñit am naa fay ñit nuyu suma waa Kër Maam yëpp waa ginnaaw raay ginnaaw laa njëkk nekk bi ma ñëwee dakaar man gannaaw ba li ma ne la gannaaw gannaaw gannaaw Diourbel Guédiawaye la am parce que fi laa yoroo maak Eumeu amuñu benn problème dama laa wax li nga xamante ni moo nekk am naa droit ñaanal la dëgër yàlla may ko ndam Eumeu Sène encore une fois amuñu benn problème non non amuñu benn problème waaw amuñu benn problème